صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر جدابر من أنت حبيبي أخليل بحكم جبيبي kuy sabab alxuraan jugal màggal ko kuy sabab alxuraan jugal taxaw te koo màggal alxuraan duwel màggal alxuraan jar na ko ca kaw ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum aleykum rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ba nu ñaanalee Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéen a jëm am ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul lépp mu def ko na ko soobee ànd ko taalibe di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmb xalif général da Baye Fall moom mi nga xam ne si ni tey mooy jëwri ni liggéey bu mag bi nga xam ne si ni ca suba ba léegi ci leen ànd ak mbokki taalibe yi waaye ànd koog mboolee waa àdduna bi rawatina yéen ñi nga xam ne si ni yéen a ngi seetaan seen xibaar 24 tey nag euh, ñu ngi fii ci kër Serigne Khadim Dieng Serigne Khadim Dieng gis doon taalibeb sëñ Moustapha Imam doon koo xamante si nii liggéeyal Serigne Touba da koo jaral lu nekk ba ndax na bi ñu fi ñëwee Serigne Paaba nga nii ak ñoom sëñ Ngañ waaye li ci gën a doy waar mooy tamit waañu fii ma nekk nii benn la ci waañ yi mais dese nañ beneen waañ boo xamante si nii tamit euh, ay xeet xéewal moom lañ fay def ànd koog mbokki taaliba yi nga xam ne si ni dugg nañ ci mbedd mi dugg nañ ci gox yi fii ba marché ba fenn fu ci nekk tey ñi ngi bale waaye ñi ngi radu waaye ñi ngi jël tamit euh, seen i seen euh, seen i gopp di bay ku ne xam na ni tey badu euh, badara màggalug ren gi dafa nekk ci jamonoy nawet bi ba tax na tamit lépp lu jëm ci wàllu jëfandikukaay kaay jëm ci wàllu liggéey bi muy bare muy radu muy euh, li nga xam ne si ni mooy ay peel ndax dañuy gas ndax ndox mi loolu lépp tamit sëñ Xaadim Jeng def gis mi ngi ko ànd ak ak mbokki taalibe yi di ko def waaye waañ bi tamit ñi ngi nii tey moom xam naa ni Bada su ma yàkkamtiwut woon fi laay añee ndax lii ma fi gis moom ku ko ku ko topp ba egg ca macaan ma da nga xam ne lépp dëgg la waaye nag sëñ Touba mel noonu dañoo wax safar waajal màggaluk sëriñ Touba te nag safar bu safee màggal ga day neex te yaakaar naa safar gi ñëw tey xam na ni tey fii saf na xale yi sëñ xaadim jëng yaa ngi nii ak sunu yaay yi ak magam yi ak uh, di siyaare nag sunu baay bi ci biir di ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam yàggal ab taxawaayam ak way jur yi ndax nag lii lépp bu amee way jur yee kon noo ñaan ñoom it yàlla nañ fi yàgg tewet ci barkeb Serigne Touba soxna si naa def mu tudd yow man Ndeye Mati Mbaye Ndeye Mati Mbaye Ndeye Mati loo may wax tey ci waañ wi ak mbégte mi ngi ah xanaa kontaan rek di ñaan yàlla nag ñu yàgg koo def ay ati at waaw ndax liggéeyal sëñ Touba moom kenn du ko def di dellu ginnaaw si kanam rek ngay jëm di ñaanal borom kër gi yàlla may ko fan gudd ànd ak wér ñaanal sëñ Xaadim Jang tamit def gis yàlla may ko xéewal yu gën a bare chaque année muy gën a yokk di gën a jëm kanam di ñaanal ñëpp di ñaanal suñu mag yu baax yi yàlla yàggal leen si jërëjëf kontaan jërëjëf kon sunu yaay te imaami di tabaxi dawara imaami bokk yëpp seen tur ak seen sant ma day ñaanal xale yi nag fii nag moom fii nag fii ci saam moom xaadim def gis moom def na lépp waañ wi moom dara manqué wu fi waañ wi moom foog naa ne comme ni nga ko waxee rek bu ñu yeggee ba ca fin ba moom kenn ku ne dina ci mën a gis sa bopp tey da gis sa bopp si si suñu rafet ndax Xaadim moom xale la mu ngi fi mais fonk na ñëpp fonk na ay waajuram fonk na bépp kilifa bu fi nekk man de dama ne woon man rek waaye nag foog naa ne ñëpp la rek ndax Xaadim moom ñëpp ñëpp la boot ñëpp la coiffé te it mooy suñ sac mooy suñ tiitar mooy suñ ndam ndax wax dëgg yàlla saam gi yéene li mu fiy def moom macha allah ñëpp a ko gisandoo lépp lu mu doon rek ma nga ca ndox mi manqué wul boisson bi manqué wul añ yi manqué wul fruit bi manqué wul dara manqué wul libi Mustafa wa umami an kulli shay'in shay'in جابر من أنت حبيبي waaleykum mbokk yéen ñi nga xam ne si ni euh, ba tey yéen a ngi topp seen euh, xibaar 24 ba tey ñoo ngi fii ci euh, ni ma leen ko waxe woon rek ci sëñ Xaadim Dieng tey spécial lay doon ñu ànd ko ak moom waaye nag ba tey mu ànd ko ak mbokki taalibe yi nga xam ne si ni ñoom la bokkal koñ bii waaye mu doon nag ñoo xamante si ni nag ñu bëgg sëriñ Touba lanu ndax bi nu ñëwee fekk nañ leen ñi ngi baye ñi ngi euh, bay euh, bale lan doon wax waaye léegi dañ cee boole euh, bay ak rado ñi ngi yor seen i gopp yor seeni ay rado ba noppi nag def seen i waañ fas yéene defar ay xéewal def ko ci bisub Serigne Touba bi te bis bi nag ku tedd ki Cheikh Salihu Mbacke mu baax ma yal nañ ko yàlla fayal daana wax naan bu ñaar dendee kii di ma kii di waajal màggalu Touba gi keneen ki ko waajalut du yam ak ki nga xam na si ni mooy waajal bisub Serigne Touba bi bis boo xamante si ni boo ci defee mu jag ba faaw boo ci deful mu jag ba faw te nga cee def ngir mu jag sey mbir jagaale ci fii ak fa jëm mooy moo waral euh, Baye yi ñoom ñëpp ñu ngi ci euh, mbedd mi ñu ngi ci euh, wu tàng wi waaye loolu Serigne Touba jaral naa nu ko kon bu ko defee damay jël kàddu gi jox ko Baye Fall bu ko defee nga wax ci bale bi ni nga xam ne si ni noonu ngeen koy waajalee ak mbégte mi nga xam ne si ni am ngeen ko heure bu ñëwee rek ñu waajal ci bisub Serigne Touba bi nga xam ne si ni amuñu lenn lu dul moom ñu ngi fii nag ci saam ànd koog sëñ Xaadim Dieng def gis. waaw jërëjëf sëñ Sante ñu ngi leen nuyu di la siyaare bu baax a baax di nuyu bokk taalibe yi ñuy seetaan nit di leen siyaare bu baax a baax di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg ci lool te ànd ak wér ba yéeneem ci liggéeyal sëñ Tuubaa mu def lépp ci barke Cheikh Khadim di nuyu bu baax it sëñ Khadim mi yàlla dogal muy ànd ak moom yëngu bi di ko def ak bépp ku nu bokk dëkkal fii ñu ne yàlla nag daa dogal bi bis bi bi ko sëriñ ji Baara diglee ba léegi ci li mu nekkee nekk xale bu sëñ Tuubaa an mu jot dañ koy taxawal mooy dañuy àndandoo bale ñett fan yi ba ma sëkk muy tey suba ak ginnaaw suba an mu jot na lu mu ko defee yàlla dafa nag xañ na bëri na ñu bëri ñoo xam ne dañuy ku ne ngay bale sa bundu ko rek bàyyi waaye noonu li ñu baaxoo def toujours mooy ñu daaw koñ bi dañoo baaxoo ànd tàmbalee fenn ñuy jeexee fenn ñun ñëpp ni ñu tàmbalee noonu la ñuy wëree mboolem koñ bi bay ko ba mu set ñu ñu ñu ñu ratt ko ba mu egg ñu ko topp ko balewaat ko noonu lañ ko def an mu jot ba mu egg ah liggéey bi it comme ni ma la ko waxee léegi liggéey bu yàgg taxawal la sëñ Tuubaa it lañ ci jublu waajal màggal it comme ni nga waxee léegi li Sëriñ saali waxoon it moom lañ ci jublu muy di ko waajalee nii ñu ko taxawalee ci ci mbalam yi noonu lañ ko taxawale laatee bu guddee ci safar gi muy am bis bu dekk dinañ wàcc ab kaamil jàng xasida ci durus yëkkati ko su ko defee daal di ñaan ba mu am fukki fan ak juróom nag ñu doog a ñaanalante daal di doog a jublu nag ci waajal gan yeeg màggal geeg yooyu waaye nii ñu koy defee ci mbale mi an mu jot noonu lañ koy defee an mu jot nañu koy defee ànd ak suñu xaay mii di ko sant bu baax it ci ab taxawaayam ndax wax dëgg jamono yi ñuy waxee ne bi muy waaj a ànd ak ñun ci liggéey bi xañ na nekk fi woon waaye daan nañ xaajaloo di ko def waaye bi mu yëgee loolu ba léegi dañ koo dajaloo di ko def benn place mu ànd ak ñun ba pare xéewal li ëpp muy def lépp muy fexe togg ay añam andi ay boisson yëpp a ngi fi fii bu nii ñu àndee di liggéey bu noppee noonu la ñu àndee defee noonu ba noppi wulatu ko gontaat ci liggéey bi ba 6 heures wala 7 heures ci la ñuy wàccee bu subaa bu soobee suñu tubaab ñu xëy si waat mboolem ñetti fan noonu la ko defee dañuy àndandoo di liggéey comme nii àndandoo di togg di bernde ba bis bi ba ba ñetti fan yi mat ñu doog a commencé nag ci ci ci comme ni ñu tàmbalee ci safar yi doog ak safari guddi yi di bernde di safar di bernde di safar ba ne bis bu jotee bis bi daal li ma la ci mën a wax lépp li ko mën a tënk daal mooy liggéeyub suñu lëkkal suñu Tuubaa rek moo moo moo ko sabab ànd ak it ñun ñëpp loolu moo moonu lëkkale muy koñ bi li muy yaatu yaatu li lëkkale koñ bi yëpp mooy day benn koñ fi ne benn képp lanu muy ki nga gis fii ak ki yàlla dogal ñëwut fi ne lim bi ni mu toll nii ci suba gi la waaye ngoon gi lay ëpp ndax am na noo xam ne dañoo ne ci itte waaye bu ñuy añ dañuy añ si ci ngoon gi la ñuy ànd ak ñun ci biir liggéey bi kon no dañuy sant dañ sant suñu xayma baax a di ko ci gërëm ndax ab taxawaayam ak jàppam te jëmmi Sëñ Tuubaa tax te it muy koo xam ne liggéeyal Sëñ Tuubaa dong lañ xam ci moom di diirub ñu koy xam moom la ñu présenté te ba léegi toujours ci moom lañu loolu la dong la ñu gis ci moom ñu moom ci leneen muy bépp liggéeyal Sëñ Tuubaa bu mën a def da ciy ànd ñun ñaari kàddu yi nag dafa faral di wax toujours te muy ñu topp ko lépp dëgg ci moom muy bisu Magalu Touba ak bisu Poroxaan yëmaliwu ma ko ak dara ñaar yooyu yaakaar naa ku ne xam na ne magal tubaa gi niñ ciy doxee ci nii ñu ko tàmbalee fii ci benn fan bi di ko def ba ni ñuy eggee ca màggal ga bernde mel noonu ba ku ñëw xam loolu bu ñu eggee ci poroxaan yi noonu lañ koy waajalee ba poroxaan gi passé ci poroxaan ku ñëw dal ba yaakaar naa xam nga ne noonu lay demee ña dal ñëpp xam nañ ko te ni ñu àndewaate fii noonu la ñuy àndewaate daleet lu ñu doon jàllale lu lu ci dëngit ñun a jubit te a mat ñu ngi leen di sant di ñaan suñu borom euh, yokk kattan yi ba wéral cër yi yëpp ba ba taxawaay bi mu taxaw li ëpp ci nit ñi am kattan googu ñoom it di ko taxawee ndax ñëpp am nañ yéene ci di ko def ci barke Sëñ Tuubaa di ñaanal laat mu Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér ak mbol ku sa def alxuraan jugal màggal ko kuy sabib alxuraan jugal taxaw ca kaw màggal alxuraan jugal màggal alxuraan jar na ko ca kaw إن أنت euh, gis ngeen ginnaaw bi nu jógee ci euh, fi nga xam ne si ni mooy euh, ci liggéey bi gars yi nee naa la ñi ngi bay waaye ñi ngi bale waaye ñoom ñëpp ñu ngi ci naaj bi rek di liggéeyal Serigne Touba wax nañ ko léegi Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké mu Serigne Fallou yàlla nañ ko yàlla fayal ndigal loolee nga xam ne si ni moom la leen joxoon ba ci Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké wàcc si ba ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha liggéey boobee ñu ngi koy liggéey fii ci Touba Sam di ko ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne si ni nag ah ñoom ñëpp ñu ngi fi sëñ Pape dama lay jox nga présenté ñu deuxième waañ bi nga xam ne si ni foofu la nekk bu ko defee bala ñoo jox sëñ Khadim Dieng jëwrin yaa ngi nii ñoom ñëpp danañ ci am ay kàddu yoo xam si danañ ko ci yëkkati waaye lépp jëm ci liggéeyal Serigne Touba bi waajal màggaluk Serigne Touba gi ñun nag ñun xibaar 24 ñu ngi ñaanal sunu sunu xarit ñu ngi ñaanal sunu soppee ki nga xam ne si ni tey moom moo waral ñu teew fi muy sëñ Xaadim Jeng def gis jëwriñ wax na ko léegi bisub Serigne Touba bi yëmalewu kook lenn ak bisub Poroxaan di Maam Jaara so man nii di wax ak yow man Sadda ci télé laa nekk àdduna bépp ngi may dégg ci baas laa xamanteeg sëñ Xaadim Jeng def gis ma jàpp ko xool ko jukkoom neex ma ma téye ko ngir sëñ Touba lool nag su ma dikkee fii yéen ñi di ay bokkam yéen ñi di ay xaritam dinaa leen leeral loole moo waral tey suñu teewaay fii kon sëñ Pape ñu jox la nga présenté nu deuxième waañ bi. jërëjëf Serigne Sadda asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di jaar yéen waa xibaar 24 di leen ñaanal suñu boroom gën a yaatal liggéey bi ba fépp fu ngeen bëgg mu egg yàlla na ko fa Serigne bi eggale barki Serigne Fallou dëgg yàlla suñu xol sedd na. suñu xel dal na ndax bañ koy tàmbali melutoon nii kon buñ demee ba mboolem média yi di fi ñëw di jël euh, liggéey bi di ko jàllale ba ñëpp mën cee jot loolu ak sant yàlla la ak yokku la kon li ñu ci doon yaakaar mel na ni suñu rafet suñ njott rafet na ci ñu ngi ciy sant sëriñ bi bu baax waaw mu mel ni deuxième waañ wi nga xam ne mooy ci waañu seriñ Xaadim Jëng def gis yi la bokk mi ngi nii soxna yi di ko taxawee Euh, daa mel ni waañ waañu njëkk bi demoon nañ fa léegi bañ gis liggéey bi mu mel ni yii ci waañ wi la bokk ak yeneen ak yeneen liggéey bi gis ngeen ko jë dong yi ak jëwrin yeeg ñëpp a ngi ci di ko taxawee ñu ngi sant bu baax man nag damay beral ak cant sëriñ Khadim Dieng def gis waaw dama koy beral ak cant ngir yàlla ak yonente bi ak bokk ak euh, wëllëre gu ñu Serigne bi boole te dara saxalut ko kóllëre nag lu dul yàlla ak yonente bi ak Serigne Touba Serigne Touba kese. lañ àndee àndeewuñ dara lu du sëriñ bi ñu ngi sant yàlla bu baax di ko sant di ko gërëm amul dara ci poosam lu mu denc lu sëriñ bi soxla ma xam ko te génnewu ko ba mu jeex tàkk day génnee yëfam ba mu jeex tàkk mu ànd ak yow leb la sa yëf def ko ci yëf yi ba mu jeex takk nga ànd ak moom mu fay la ne la lii nga defoon ci liggéey ba nga ne ko dama koo defoon ngir sëñ mu ne la defaat naa ko addee sëñ Tuubaa su àndeek yow day fiir sax ci nga jël sa yëf di ko def ci sëriñ bi loolu nag ak yaatal la ak rafetal la ñi ngi koy ñaanal turandoom gën a jottali loxoom ba mu jot fépp mu dañuy day wax bët bu set ne li ma bëgg amaguma ko feek awma ay milliards amaguma li ma bëgg moom mébétam dafa egg ci ay tali ak i godoron ak làmp ak yeneen ak yeneen yemalewut mébétam fii kon ñi ngi koy ñaanal suñu borom jottali ko ci mbooleem lu mu bëgg bi jaayi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul mënuñoo wax ci moom ndax lu ñu wax rek dañuy yaakaar ne Eh, ànd bee tax waaye yàlla seere na ne sëñ Tuubaa képp lañ gis ci moom bay ànd ak moom ñu amoon lenn lum ñu wan lu du sëñ ñu wan ko ginnaaw dem ci sëñ ndax ñun tàggatuñ ñu dara ci lu du sëñ yar nañ ñu jàngal ñu li ñu mat a xam xam nañ ko eh, yewu nañ xàmmee nañ xam nañ suñ gisutoon ci moom li ñuy wër muy sëñ bàyyi nañ ko fi bu yàgg wëri ko wëri sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Pape kon ñu jox kàddu gi sëñ dem Dieng def gis bu ko defee dégg na kàddu yi nga xam ne si ni wax nan ko ak fi nga xam ne si ni fi leen jaar waaw jëwrin sëñ sëñ Ndiasse moom la ñuy jox moom it ci jëwrin yi la moo sëriñ ji lee ngi nii taxaw ñoom ñi ñëpp ay jëwrin lan ànd ak euh, sëñ bi liggéey bi mu doon ñoo xam si tamit fii ñëw naa fi cant ba tàyyi dama leen fi fekk ngeen taxaw liggéey bi lépp rek ngeen bëgg sëñ tubaa di ko liggéeyal kon yàlla na leen sëñ Touba fay xam naa ba dara sama waa ji euh, jombul waa Paaleen ñi ngi soññee waaye may ñu tuuti rek ñu jël fi ñaari kàddu. aùzu billaahi mina sëñ Touba sëñ Saad dañu ngi lay nuyu di di siyaar di siyaar mbokki taalibe yëpp di ñaanal Cheikh mun Cheikh Mouhamadou suñu borom guddal aw fanam te wéral ko. ba yéene jëm am ci liggéey Sëriñ Tuubaa mu defee ko la koy jot te ànd ko moom ci barke Seexul Xadiim Sëriñ Sada dañuy dolli santaat Sëriñ Tuubaa bu baax ci liggéey bi nga xam ni ñi ngi koy taxawee ci jëmmi Sëriñ ji rek tax mu mel ni ni nga ko waxee ci Sëriñ Xaadim noonu la ko gor yëpp waxe noonu la ko taalibe bi Sëriñ Tuubaa yëpp ndax mbir bu fekkente ne da koy def ci Sëriñ Tuubaa rek tax képp koo xam ne am nga tomb dara ci sëñ Tuubaa da koy nangul nanga xam ne moom la cay jëf te ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ak moom ci koñ bi rawatina man mii nga xam ne deuxième waañ ci sama kër gi la nekk seere ni liggéeykatu sëñ Tuubaa la ca gisu ci kenn nag ku sëñ Tuubaa xoolu ci kenn nit ku sëñ Tuubaa li muy defee sëñ Tuubaa rek nag moo tax mu di ko def ndax Olof Njaay dafay wax ni lu dul dëgg du yàgg te lii nii nag lee mu yàgg ca saa su jotit day gën a jëm ca kanam kon dëgg gi wér na nangu yow sëñ Tuubaa nangu ñun xam nañ ci dara ndax mbir moom fekkee ne da koy def gisoo ci ak yokkute ca sëñ Tuubaa tax ko def gisoo ci ak yokkute jàppal sëñ Tuubaa nangu ko waaye saa boo koy def gis من أنت حبيبي أخلي القرآن حبيبي وسط القرآن جوجل ما قالكم a sabib alxuraan jugal taxaw ca kaw màggal alxuraan jugal màggal alxuraan jar na ko ca kaw إني kaddu gi su ko defee moom tamit euh, mu tëjal nu ko euh, gis na dégg na kaddu yi nga xam ne si ni mbokki taalibe yi wax nan ko waaye xam naa ne lii lépp tamit su doon aw fas wu nuy dóor la ma xam ni dañ koy làbbali lii nuy wax ci moom nii lépp aw sas la maanaam dañ koy dañ koy wan ko yoon wi nga jaar neex na nañu ànd nañ ci ak yow boo continuer ñu continuer Pape wax na ko léegi Cheikh Abdou Lahad Mbacké bu baax ma yal nañ ko yàlla fayal da ko doon misaal ba ni sëñ bi rek ngeen ma toppee su ma bàyyi woon sëñ bi Moustapha Bassirou mii du ma ŋaabal ak satala kon lépp ci sëñ bi la sëñ bi nag ñun moom lañ bëgg ba yëmaluñu koog lenn badu Serigne Touba moom leen bëgg ba yëmalul ko leen rawatina màggal gi tubaab yi du ñu gën a muus de bii avion yi dañ koy wàññi ngir màggaluk Serigne tubaa gi saxaar gi di daw ñu wàññi ko wàññi oto yi gaasuwaal bi lépp ñu wàññi ko màggal gi sax feet lañ koy def sagam tubaab yi jàppoon sunu waa ji bu seen pexe juboon màggal gi du am sëriñ Touba toroxal noonu yi daan leen yëkkati diine taxawal lislaam moo tax bis bi bu jubee la sëñ Bay Jaxate waxoon tey jii leen di wax ba ni tareet ngir 18 safar moo teru ñuy waajal màggalu sañ Touba gi sëñ Xaadim Dieng def gis. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba ngi sant suñu mbokki dëkkandoo yi ñu am yëpp nga xam ne ñoom ñëpp suñuy jëwriñ leen suñuy kilifa leen ndax booy xool ci eh, ñi doon wax ñëpp ku ci nekk maanaam rakk laa ci yow kon samay kilifa leen ah, ànd bi ñu ànd di liggéey sëñ Touba nag jëmmi sëñ Touba ji rek a tax. amul lu ñu lu ñu lu ñu toppee kenn ndax maanaam ñoom fekkee lu ñuy am suñ borom kenn ku ci ne mi ngi lay suturaal ca la nga bëgg ànd bi ñuy ànd di liggéey nag maanaam liggéeyal sëñ Tuubaa rek liggéey sañ Tuubaa rek moo tax ñu ànd di liggéey lii ñuy defatim ñun defuñ ko ngir kenn ci ñoom maanaam sëñ Tuubaa la ñuy delloo lépp dama doon wax sama benn xarit ne ko maanaam maam sëñ Tuubaa bu ma koy sant damay xool lu ma bëgg jël di ko sant rek bu ma xoolee yëfam lay doon moo tax ma xam lu ma koy sant maanaam kuy bëgg sant sëñ Tuubaa nag di xool loo jël muy muy yëfam yow doo xam loo koy sant maanaam moo tax lu ñu am rek delloo ko sëñ Tuubaa wax ji nag duñ ko guddal ndegam maanaam euh, jamono yi ak xat-xati jamono ji dafa dafa dafa dafa dafa dafa kii dañuy daal di tënk lépp rek di ñaan sëñ Tuubaa mu dolli ñu ay xéewal te dëbbuñu kàttanam waaw ah, dëbbuñu kàttanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, salaam wa rahmatullahi waaleykum salaam c'est waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ Xaadim yaakaar naa dégg nañ kàddu yi mbokki taaliba yi nga xam si tamit ñu ngi ñuy seetaan tamit rawatina euh, xibaar 24 tamit euh, defe naa ne jëmm ji duma leen ko présenté da ngeen ko xàmmee ndax am na ci ganeen wet goo xam ne si nii mas nañ fee seq ak moom émission taaliba yi sëriñ Tuubaa yëpp di ko bége rawatina sunu xarit ba nekk euh, fu sori fa comme moo préfet nan waaw waaw su préfet kap su këri xaw ma nan kaaw kap këri mi ngi noonu waaw sëñ Cheikh ñu ngi koy siyaare di nuyu lépp Pape Lam nag moom dama ko mere boobu moom moom du ma ko tudd tey <laughs> moom maire ba waaw Tombo Gueye ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare sunu waa ji daal mi ngi nii bu nekk bu nekkee ca di ci dimbali jaami yàlla yi bu liggéeyal sëñ Touba jotee kuy indi million kuy indi ñaari million sëñ Khadim Dieng nee na damay pause 18 safar damay liggéeyal sëñ Touba kon nag yàlla na ko yàgg a taxawee ci barkeb Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa li bi ngeen jox mbokk yi ni leen ko waxe woon spécial lay doon ci euh, bale bi waajal euh, màggalug Serigne Touba gi waaye ginnaaw bi ñu jógee ci sëñ Khadim Dieng def gis ñoo ngi fii nag jàkkaarloog sëñ euh, sëñ Baara Amina sëñ Baara Amina moom Cheikh Baara Amina Diagne moom Serigne Galas Amina moom Cheikh Mamadou Lamine Baara fii ci première garage nag fi nga xam si nag fi lay liggéeyee waaye gis nga mbokki taalibe yi ba na xëyee ba léegi dugg nañ ci mbedd mi dugg nañ ci gox yi goxaat yi ak biir kër gi fas yéenee jël mbala mi loolu lépp euh, dajale nan ko fii nag di xaar oto bi ñëw sëriñ baara ñu fekk la fii ci première garage ak liggéey bi ngay liggéeyal Serigne Touba sa lépp di première garage safar gi ngeen di waaj ngeen fas yéene koo def fii lan ngay wax mbokki taalibe yi ci bale bi ak nan gis sa bale bi waajal màggaluk Serigne Touba gi nga xam ne si ni amuñu lu dul moom ñu ànd ak Cheikh Bara Amina Diagne jàmbaari Serigne Fallou aousu billahi mina seytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi alil azim barke Cheikhul Khadim waaw sëriñ Saat da noo ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di leen xamal ne mbale mi moom noo ngi ci comme ni ko Serigne bi santaane ndax Serigne bi dafa woote ni na ñëpp génn ñu bale dëkk bi mu set ndax ay gan ku leen am di war leen a dalal dangay ngay daal di fa ñuy toog wala fa ñuy nekk da nga koy daal di defar kon loolu ci lañ nekk taalibe yi nag ñëpp mobilisé wu nañ muy Baay Faal yi muy képp ku mën a doon ñi ngi ci mbale mi di bale dëkk bi di génne li ci kër yeeg yëpp ngir tuuri ko ngir gan ñi bu ñëwee mën a set sell fekk fi loo xamante ni bii daal maanaam noonu la ko Sëriñ Tuubaa bëggee ndax Sëriñ Tuubaa moom daraam tilimut daraam taxul te képp ku ko liggéeyal mu fay la wasalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Sàkk ak jërë ngeen jëf euh, Serigne Bara Amina dégg nga ni nga xam ne ni noonu la ko waxee kon Serigne Bara euh, ginnaaw bu nu balee ba noppi nag ñi ngi waaj màggaluk Serigne Touba gi lan ngay wax mbokki taalibe yi rawatina Baye Fall yi nga bokkal sëñ Galas Amina ci màggal waaw di sant Serigne Touba di sant sëñ Galas Amina bu baax a baax di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi te mu wér ñu ngi koy waaj sëñ Sadda comme nan ko daan waaje rek sëñ Touba nag la mu waxoon mooy ku tàmbalee ci maanaam ginaar ba ci gileem sëñ Touba xeebut ginaar waaye yéemut gileem ndax lépp ci moom la daje kon ñu ngi koy waaj waajin woo xamante ni bii suñ dara du ko fekkee bu ñuy jaay suñuy oto jaay suñuy kër di ko def ci bitu bisub sëriñ Touba bi sax danañ ko def ndax sëriñ Touba jaral nañu lu ëpp loolu te lu nu am wala lu nu mel wala lu nu xam sëriñ Touba kon jërëjëfe sëriñ Touba ba noppi nag di wàcc fii ci première garage safar boo xam ne dañ koy faral di def chaque jour yow sëriñ Saad da nga di ko taxawee kon safar googu ñu ngi koy waaj itam di ci woo mboolem taalibe yëpp jërë jëf

صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر